ñu mun a uutu Basiru ci wax ñàkkul ci seen pat mais ban stratégie lañ ciy demee loolu laaj la ak ndax dëgg-dëgg Basiru mooy seen plan B léegi nag bu dee Basiru ñoom mooy seen plan B ça sera un candidat de ça sera un candidat de transition parce que parce que Cheikh bi foofu c'est important parce que mm-hmm. am na audience yu mel ni comme ay plateau RTS am ni candidat yi personne ñoom ñoo fay mm-hmm. taxaw lu ñu mel c'est sûr que ni Bassirou ne pourra pas représenté tout à fait su jàll na li nga xamante moom moo di état parrainage moo tax moo tax moo dugal laaj bi ndax est-ce que dëgg-dëgg mooy candidat mooy plan B mais li nga laaj noonu bëri ñu nga xamante la boîte secrète kenn mm. kenn kenn dévoilé gu ko. Mm. et mën a nekk la te boo xoolee Ousmane Sonko ba tey ni mu nekkee seen plan A. Mm. Bachir tey nekk seen plan B am na ñu ne am nañ am nañ plan ba xam nga toog nañ fii sa plateau bi. ñu ngi doon door a jàpp Ousmane Sonko wala jàpp guñ nga laaj ma ndax Pastef du wut plan B. ma ne la gëm naa ne am na B ba Z. parce que man dama gëm ne Ousmane Sonko boo xoolee ni muy fonctionné. ni muy interagir ci dossier bi da xam ni sóor na hypothèse yu bëri yi nekk ci kanam. contraire que A amuñu. waaw ah, loolu man stratégie loolu waxoon naa la man loolu dama yàggam ne stratégie man dama yàggam ne Pastef au plus grand jamais du def erreur bi taxawu ak wàllu def. élection yi danañ ci participer danañ am beneen candidat mais dinañ focus ci Ousmane mel ni ñoom peu importe Ousmane rek lañ pare àndam. te Ousmane Sonko gi nga 55 jours am yooyu ñu ko bari barricade gëm naa ni sóor na hypothèse yu bëri mooy buñ ko jàppee. Pastef war a dem ci élection yi nu muy demee buñ ko jàppee jàpp lieutenant yi nu muy demee buñ bàyyiwul candidature am bàyyiwuñ candidature lieutenant yi bokk ak moom part yan allié lay rabatturu ainsi de suite ainsi de suite. est-ce que kon loolu mooy justifier le fait que su fekkee tey am na plan kenn xamu ko et que Mr Amar fu mu nekk nii. xam nga puus na puusal na benn pion muy basiiru déjà en détention mal biñ ci mën a def bëriwut Basirou li mooy yàq dossier pour aaye ko mu dem ci élection pour nga yàq dossier da nga koy juger pour nga juger ko da ngay taxawal la procès de Ousmane Sonko déjà dafa timing amoo fi temps vide dossier boobu beneen bi ku fi juum ba tëj fi procès fii ak élection yi may tribune Ousmane Sonko bu mu toog wax da ko rëcc ci say élection mën na laa gagné sax à soixante-dix pour cent parce que vote émotif day dugg te Ousmane Sonko c'est un très bon ku fi tijji mu fi ak élection yi may nga ko tribune bu mu communiquer donc procès mënul ne mënoo condamner Bassirou Diomaye li nga mun mooy jaay ko doole mooy li yenn nit ñi di wër fan yi di wax ci plateau yi naan ko bokk Pastef du dem te du droit xam nga loolu du droit loolu jaay doole la mooy li ma neex mooy nekkatoo état de droit état de ndongo njaay la attention gis nga bés bu duggee ci porox ndoll boobu da ngay jël vote émotif u sénégalais yi maanaam fayul bor yokkaat ko ci coefficient wu Bassirou Diomaye mooy danañ fo voté ngir libérer Sonko kas danañ voté ngir libérer Bassirou Diomaye tafal ko danañ voté tam ngir régler injustice yow final maanaam yow li ngay am ci coefficient sa dudul bëri donc Bassirou boo ko jaayee doole baaxul ci yow boo ko bàyyee mu dem baaxul ci yow maanaam paaka ñaari boor la foo jàpp mu dagg xam nga loolu lan nga war a def penda nangu ndogalu yàlla jéem cee rafet li ci des xam ni yëf yi du yow ku ma waxte ah man damaa bind sànni. ku far yaa moom eh, ku far yaa moom. fan yi fan yi réew mi neexut la damaa bind lettre rek sànni. mais Cheikh Ousmane. Mhm. si toutefois Sonko euh, candidature mhm. finalement mu mun a nekk. Mhm. wala boog mu nekk. Euh, sachant que ni ñi ngi remercié ni moo di parrainage des élus pour moom kon dans ce cas Bassirou Diomaye bi nga xamante ni moom déjà partisans yi ñu ngi ci dem ak engouement ñu ngi koy collecté ay collecté ay parrainage di ko collecté ba pare di ci barkeelu kon finalement moom. waaw xam nga bon Pastef mun na am ñaari candidat dem ba ci biir ñaareeb jàll bu Ousmane ak Bassirou jàllee da leen leen Bassirou day désister c'est-à-dire Pastef fi mu toll nii mu wuuru mu jël ëmbam yëpp yóbbantee mi am na ñu koy waxee yëpp ko ci benn gaal ndax yow koo xam ne gaal boo lancé ñu diigal ko. day doy trop nga jël sa ëmb yëpp teg ko ci benn gaal. Pastef moom li ñuy wax naan jinax bu bëggee gudd fan day bëri pax wax boobu mi ngi doo am sansam par A ou xam nga keroog maa ngi bokk ak Dame mu koy leeral Ousmane Sonko mun nga ne candidature bi dafa am ñetti niveau dafa am moom premier niveau bi am deuxième niveau bi ses lieutenants mooy Bassirou biram Souleye kii Marius El Malick Abbas et autres nga xam ne mooy liir naam yi nekk biir Pastef te jëli nañ fiche de parrainage am troisième niveau bi mooy ses alliés fidèles yi mu wóolu dañ ci dugal Dame Mbodj ci dugal Habib Sy dañ ci dugal Maymouna Bousso dañ ci dugal xëy na Déthié Fall dañ ci dugal ñi nga xam ne boog mooy ñoo bokk lakkoos foofu yëpp Ousmane bu dee foofu rek sës maam bu mu ci doon li am solo mooy participer activement ci élection yi ndax Pastef seen noon yi wala ñi àndut ñoom sax nangu nañ ko dégg nga ko ñoo ko ci plateau yi bu ñu voté à soixante quinze pour cent de leur électorat seen candidat day jàll deuxième tour seen allié mun nga ci dugal colonel Mbodj allié yi la bokk mun nga ci dugal mun nga dugal dafa bëri kuñ ci placé moo xam ci lieutenant mi la moo xam ci allié mi la bu jàllee l'appareil de Pastef topp voté à soixante quinze pour cent day jàll deuxième tour su voté nag ak quatre vingt dix pour cent day jàll au premier tour te quatre vingt dix pour cent xam koy créé vote émotif mooy nga xëy bis na bokk du jàll. foo ko teg nga ne damay jaay doole. Cheikh Ousmane ndax mun nañu mun nañu mun nañu xaar kon plan C bu Pastef ci li nga xamante ni moo di yi sachant que ni sa tourisme. bien sûr bien sûr mi ngi wéy di recevoir ses bu ñu téye plan B bi Bassirou day leer Ousmane ni keneen ku mu jëlaat ci leer naa mi dañ koy téye su boobaa day rabaataru ci allié yi. léegi nag imagine toi ñu ne lieutenant mi jàlluñ allié mi jàlluñ su boobaa lan lay am xam nga dooy élection su boobaa ne ku nekk tiire ci ay conclusion et malheureusement gis naa ay nit yu bëri ay xaw ma nan laa ko mën a woy di wër fan yi ci plateau yi di tenir discours boobu defaraluñ seen camp par rapport ak l'opinion sénégalaise man san man Benno Bokk Yaakaar penda rek laa gis ñu jëm ci ay élection ñuy communiquer ñoo xam ne daf leen yàqal l'opinion man loolu c'est du maanaam génn di wax loo xam ne du jëmale sénégalais yi ci Macky Sall wala ci candidat mais daf leen kañal man loolu mosuma ko gis pent mais je sais pas moo tax man yàgg naa wax ci sa plateau na la man gëw ma ni Benno Macky la ñuy liggéeyal parce que bu ñu xëyee ba suba jant soo acte yi ñuy posé nu tudd ça va l'encontre de leurs intérêts nan ngay demee ci ay élection di maanaam di favoriser benn sentiment de nit ñi mere la yow nan ngay génnee di wax naan ku bokk Pastef du dem ci élection yi maanaam ku bokkoon Pastef même boo demee ci candidature portée par un parti légalement constitué doo bokk fu ko teg nga ne yéen la neex. kan ma mais bëri na des gens yoo xam bëgguma tudd seen tur ñu ngi war plateau yi fan yëpp di ko wax même sax di ko bind ci seen page ci internet naan ku bokk Pastef du dem. Hmm. mais Pastef yow ñaata juriste nga xam yu bokk Pastef. Ngouda Mboup et autres Pastef dof nañ ñoom bay dugg foo xam ne article 57 da leen di bloqué yow kuñ dul may dara. yow yow déjà say droit rek. non nag mais nag cheikh bi xamul tax affaire article l mu ëllëg mu ëllëg mhm. xelam ni ci mooy li ma la wax. Mhm. ku ne xam na ne Bassirou Diomaye Faye euh, sa candidature n'est pas indépendante mhm. maintenant. fan la bokk ci ban parti wala ban coalition moo ko boot loolu tant que mi ngi nekk mystère. xam nga dégg nga El Malick na man xam naa de source sûre que Pastef ñi retiré fiche de parrainage yëpp am nañ récépissé parti légalement constitué bu ñu demee. man loolu xam naa ko de source sûre te même bu ma amul woon source bi du ma bett xam nga lu tax damaa gis ne Pastef même seeni droit pour ñu nangu leen ko problème na kon ñun est-ce que dinañ jéggi yoon loolay la. dul may benn duñu la jéggal fukk donc c'était clair que Pastef du ñu dugal ay candidats. mais te ñun tegaluñ ko waxaat ñu dellu ci allié yi c'est important. Mm-hmm. Euh, déjà mu jaaxal le fait que Ousmane Sonko euh, njëkk recevoir ñi nga xamante ni moom mooy ñoom ñoo di ses alliés. Mm-hmm. avant de recevoir ñi nga xamante ñoom ñoo di ay jegeñaaleem je veux dire les El Malick et et mm-hmm. autres démb ba mu fi recevoir eh, sama koy laaj ndax seeti na ko mi ngi ma naan dina ko séddee ci fan mais gis nañ ni allié yi la njëkk recevoir. lu ni mel nag euh, ñu njort ni peut-être. Euh, ci ci ci ci ci motif yi wala boog ca lañ fa jot a waxtaanee bokk na ci li nga xamante ni mooy ñeel euh, plan C bi possible plan C bi wala ila wa ila bu ñu demee ca ca deuxième tour nañu war a àndaatee mais bu ñu xoolee président Habib Sy mhm. bi waxoon ni tey jii moom il est le candidat de la transition mhm. mën nañu jàpp ni plan C bi mën na nekk Habib Sy wala man daal li ma gëm mooy plan C tey aussi ku mel ni de Fall dem na fa président soo recevoir na ko ñi ma la limal ñi mën na ko doon mën na ne Habib mën na ne Déthié Fall mën na ne colonel Mbodj mën na ne Maïmouna Bousso mën na ne mën na ne mën na ne mën na ne Ayib Daffé euh, dégg nga Ayib Daffé euh, Maodo Lamine Diante mën na ne Déthié Fall gëm naa ne Ousmane fi mu ne nii moom du fa recevoir ku mu wóolu ku mu fa recevoir wóolu na la mën na ne Bamba Girassi mën na ne ñun ñëpp nga xam ne c'est des alliés Ousmane wóolu leen te nekk di leen recevoir. mais ci sa analyse. waaw kan la war a doon. ah mais est-ce que bëgg nañ tey su ma xamoon tey kan moo war a nekk seen plan C ma waxu man daal xam naa ne Ousmane Sonko bu plan BM Diallo plan CM déjà c'est un homme fidèle déjà koo xam ne du am doute ci fidélité am ak Ousmane koo xam ne dana am consensus autour de sa personne mooy les militants de Pastef danañ identifié wu ci moom ci ay position ci ay discours ak combat de principe ñoom yi ne xam nga Pastef dafa am yi nga Pastef dafa am combat yoo xam ñoom dañ cee ne kuñ dégg wala kuñ ci dul gis jàpp nañ ne bokkoo ci ñoom ak loo jege-jege Ousmane ñoom dafa am combat yo maam dañoo jàpp ni ñoom dañoo am benn traversée du désert buñ dund boo xam ne kuñ ci déggul nga àddu ci maanaam toog nga ci plateau ñu laaj la ci sa xalaat peu importe xam nga colonel Mbodj tontu na ci ay dossier wu Ousmane. Ah, c'était pas évident. moo ko Ousmane tamit gis nañ. gis nañ ñeneen ak ñeneen def nañ ko Ziguinchor ñeneen ak ñeneen def nañ am na ñoo xam ne dañoo am na na mais am na ñoo xam ne dañoo daw dossier yooyu boo ko tuddee dañu naan boo dañuy partager responsabilité bon ñaari camp yi nañ xool. est-ce que sax du colonel Mbodj. <laughs> bu ko indil problème <laughs> fi toll nii placé wu Ousmane moom bu ci indil kenn problème yaa ngi dégg. donc Pastef dañoo jàpp ñooñu nga xam ne musuñu solidariser wu ci seen traversée du désert boobu du ñoom du neex mukk ba ñu sentir Pastef ci ñoom seeni combat jàpp nañ nag ni gis nga ñi leen nekkaloon ci naaj bi maanaam ñi leen newaloon ci kër gi ñoom bi nekkee ci naaj peu importe luñ lay jiin luñ lay takkal sa passé ñoom jàpp nañ ne am nañ benn reconnaissance bu laamee donc jàppal ni déjà kooku foog moom consensus ci loolu beneen bi it foog mu profil bi nag comme ni nga ko waxee léegi am profil bi parcours bi euh, aussi nekk nit koo xam ne attan na état. oui. loolu tam c'est important xam na attan état xam na état parce que tam président de la république du du du du mbott tamit ñu jox ko de la république. Hmm. loolu déjà danger la sax ci Ousmane danger la tamit ci réew mi donc gëm naa ni daal. moo tax sax na ñu gis ni. Diomaye est encore trop jeune xool keneen ko ñu war président moom bon man je pense waa ci côté jeune. oui. xëy na leneen xëy na leneen mun nga ko remettre en doute mais pas jeunesse parce que man dama gëm sax ni jeune moo war a jot réew mi ñu xool Macron mi France intérêt mi ëpp xale bu ndaw la jotee dëkk bi bu ñu xeeb suñu gars suñu gars yi li ñu yor presque moo gën a diis président président ay conseil technique rek nga am penn pas âge âge moom gisuma ci problème boobu leneen kenn la ñuy wax mais du âge et puis génn nañ air boobu quoi mun a am population boo xam ni 75 pour cent de jeunes la nga ne mag bu nekk nu mu maanaam ci au crépuscule de sa vie moo leen di diriger loolu mënul nekk. d' accord waaw euh, démb euh, jot nañu teg loxo euh, ba noppi waat leen ñett ci ay. je peux dire ñett ci ay membres wu Pastef wala boo koy jege ñaari Jomaay Fay bi nga xamante ni jamono ji ni candidat la